dikkati naa yu Barthélemy Dias bi day ma nga yënq ni bañ turbine yéene naan kon ñaari a a ne moom président Macky Sall soo moytul mu jàggar bi Barthélemy Dias ba biir weex daal di teg ci suuf daal di foqar ñi nga xam ni moom moo di maire bu Ndakaaru ci kaw Barthélemy Dias laas yéen kay nan man en tout cas avocat am ba Aïssata Tall Sall fi mu ne Barthélemy Dias mën naa sukk daal di xaar lan lay dogal ci moom la ciy tëdd ñaar fukki million ak juróom yoo xam ne war na ko ay avocat Barthélemy Dias naan droit ci boppam la waxul te naan am nan yeneenu paxe muy rabaadare ba ngir Barthélemy Dias ci boppam ñu setal ko wecc ci boo xam ne bi ci boppam moo na ñoo xam ne fi mu ne nag lekkuñu naanuñu bég lool di xaar ma ñàkk sama man Barth day mairie bi bougé ma fi jógewu ma fi bu leen ñu catu ci sama liggéey Barth naan leen kuuf li ñu tàmbalee ci ndakaaru ci boppam bàyyi leen ñu eggale koog suñu sago ñeneen ñi xam ne nag dëgg-dëgg ndakaaru jël joob sango maar ndaa naan moo fi am wolfu naan kon coow li coow coowal xalifa Ababacar Sall la ndax xalifa Ababacar Sall fi mu ne soo moytul nag moo dul matal parrainage ndax bu wekkoo ci parrainage yu député yi Bart moom mandaam ba ma nga yëng bés bi le jour naan kon en tout cas yet wi dal na fa mu daan dal farat l'info naan kon ñetti yoon la am defet Barthélemy Dias ñetti yoon bañ ko njëkkee atte ba mu demee ci appel ak ëttu bi gën a kawe turbine yéen a kaay naan man daanaan bi dëgg-dëgg mooy Ndella Madior Diouf dossier ba daal dinañ koy tàngal jër may mun a yoo xam ne warees na ko jël léegi ci pouponnière yi l'observateur man en tout cas l'enquête bi moom mi ngi mel ni ci nduy bax amul ruq bu sedd fu ne ña ngi fay laajee juróom-ñaar ciy nunu ak ñaari assistant jàpp nañ leen ñi ngi gardaaw yi pouponnière bi daal dinañ koy tëj ña nga xam ne ñoo jur doom yi ñi ngi tàmbali di leen identifier kenn par kenn moom rapport yi nga koy wër ñi ngi bëgg a xam ne lan moo jot bébé yi waaye tam lan mooy responsabilité nguur gi ci scandale yi nga xam ne mi ngi am fi ñuy téye xale yi libération yéen kaay naan kon déet kër yër mënde kaay la fa am nopp sax mënee su ko dégg ñàkk toppatoo ak xiif ñaar ci bébé foofee ñoo xam ne mani la buñ doon accouché ci nëbbatu lañ ko doon def clandestin ñu wasin loo leen paree jël doom yi daal yóbbu am na ci koo xam ne ba mu ñëwee di jël si waat doomam dañ ne ko juróomi million ngay fay kenn koo xam ne ci personnel bala bokki daal takkadeer yi moom dee la day business la doon def xaalis ba mu doon yor takku na lool doon ko jot ci ñoo xam ne daf leen doon gëm loon daf leen tudde ay doom le quotidien le gi fi ma ci loo xam ne daanaka mat na juróom-ñaari junni ci xale ñu ñàkk seen bakkan ci at wi rek ma ni la ci géej gi ña nga xam ne ñoom ñoo di gaal ya nu yéegoon ak ña nga xam ne ñoo ca yéegoon daal di réer mër fi ne nag ñu daal di leen di lim ni ki ñu faatu te ñoom ñëpp nag ña nga doon wuti ëllëg gu ñoom daal bëgg a yegg ca îles Canaries yi far daal di ñàkk seen bakkan ci yoon wi turbine yéen a kaay naan man diggante président Macky Sall ak askan wi luy problème bi avenue Demba Diop ban bëgg a soppi turam ca Tamba di pee ko président Macky Sall askan wa ci boppam ñoo lànk laas yéen a kaay naan man boobu adaa ci boppam ma ngay sàkku ci biir kaso yi mu am ay bureau de vote ndax ñi nga xam ne tey nañ leen ñu mën a nag tàmbali ñoom tamit wote ci réew mi yéeni bi naan maan Adama Sarr maire bu Kër Massar ma nga naan waa Pastef geesu leen Cheikh Tidiane Dièye ndax mën na gàddu nag seen projet bii jëmale ko palais libération yéeni naan kon gérant station essence ba ñu faatoon ñaar ci pompiste dëgg nañ leen ci tribune yéeni naan kon tës baa ngi ca diwaanu Thiès benn liir ne daanaka moom la ñu fekk ñu daal di ko ni ràjj ci benn mbuus sànni woon ko mbir maa nga amee ñi dañ jaay seen bopp te ñoom ñett ñëpp nag bàyyeekoo wun Sénégal Sierra Leone la ñu bàyyeekoo ak lu mën a mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoo jàmm. joyeux anniversaire de la part de de de tous ses amis. voilà moom euh, dina comprendre. <laughs> alors donc peut-être euh, sans tarder euh, foofa na comme yëf yi demee na nii tey. Mm. ñu sóobu directement ci ci ci xibaar yi waa régie avec les titres. Euh, li gën a fës ci li nga xam ne moom moo jib ci xibaar yi naka tey ji jëm na ci personnelu pouponnière Kër Yërmande bi nga xam ne démb déglu nañ leen ñi leen déglu mooy euh, la brigade de mœurs bu sûreté urbaine bu Ndakaaru euh, looloo waral nag garde à vue bu Ndella Madior Diouf mi nga xam ne alxames ba léegi mi ngi ci loxo police ñu prolongé ko te amaana dina dina Noël foofee ci biir police la koy fekk xale yi nag ñi nga xam ne ñoo nekkoon Kër Yërmande ñeent fukki bébé ak juróom mujjee nañ leen yóbbu ñii euh, centre Albert Royer ñii hôpital centre de santé Gaspard Camara ngir taxaw leen ndax ne am na ñoo xam ne euh, seen wérgum yaram demewul noonu Barthélemy Diaz nan lay mujjee ginnaaw bi ko Cour suprême bañalee pourvoi bi nga xam ne dugaloon na ko di contester la ñu ko daanoon atte ko daan ko ci mbirum Ndiaga Diouf bu ñu sukkandikoo ci ci biir di docteur mbay Cissé nee na amul benn werante poste maire am da koy ñàkk ci boppu bil bu ñàkk également poste député ndax article L 135 nga xam ne moo war a mën a tax ba président de la République jël décret bu koy révoqué jële ko ci mairie bu Ndakaaru waaye tam poste député mi nga xam ne tey jii mi ngi ci gàllu goose dina ko ñàkk bu fekkente ne euh, ministre de la justice jëfe na ndigal wala boog sàkku ci assemblée nationale ñu rocc ci turam wàllu tàggat yaram sport lay doon ak euh, coupe d'Afrique bi nga xam ne fii ak ñaari ayu bés dina tàmbali ca Côte d'Ivoire waaye nag Sénégal war dem défendre titre am yi ndax talaguñ ko amaana ndax amul lenn ci mbedd mi loo xam ne wane na ne ci coupe d' afrique la ñu jëm amul tamit euh, ñu bëri xamuñu sax datu coupe d' bi kañ lay tàmbali ci kanam tuuti reportage yu Mantulaay ndooy bu fekkente ne jàppandi da ñu jeexale xibaar yi ak soxna Mantulaay Cubbundooy ci li gën a fës ci ëttu yéenekaay yi kon Ndella Madior Diouf ba léegi mi ngi ci biir euh, sûreté urbaine bu ndakaaru ci loxo police la nekk boobaak léegi arxemes garde à moom moom dañ ko mujjee prolongé ndax li ñu doon déglu ñenn ñay liggéey ca pouponnière ba bokk na ca gardien ba bokk na ca secrétaire u Ndella Madior Diouf ak ba ci gone yi jigéen yi nga xam ne ñoo doon toppatoo ak dundal bébé ya nga xam ne ñoo fa nekkoon looloo tax nag ba Ndella Madior Diouf war a mën a amaana euh, nowel bi fekk ko ci biir euh, police bi di xaarandi nag ñu mën ko defeere mardi bi di di ñëw ci kanamu parquet bu tribunal bu ndakaaru en attendant ñeent fukki bébé ak juróom-ñett yi nga xam ne ñoo nekkoon ca pouponnière kër Yërmande ñoom tasaade nañ leen euh, ci ay euh, bérébu kër docteur lu ci mel ni centre de euh, centre Albert Royer ak centre de santé Gaspard Camara ngir ñu mën leen a toppatoo ndax ni ñu fekkee yenn xale yi ne jéggi na dayoo ba daanaka ñu bëri xiif. gu métti lañu nekkee wala boog dañoo xiiboon arxemes ci ngoon le ministère de la santé de l' sociale ak ministère de la femme de la famille de la protection des enfants yónnee foofee ay ndaw ngir ñu dem jël xale yooyee yóbbu leen kër docteur pouponnière ba faf ñu tëj ko amaale tam benn cellule de crise bu ñu teg ngir mën a toppatoo mbirum xale yooyee ak ni ñu mujjeek Ndella Madior Diouf ajaratu ay chening lu ëpp ñeent fukki liir ñu ngi leen évacué ci centre de référence bu gaspar kamara gannaaw ba ñu tegee loxo Ndella Madior Diouf mi ubbi woon ab pouponnière tuddee ko kër yërmande te amul agrément jamono yi bébé yooyu le ñu ngi leen jël entièrement en charge lu jëm ci suivi médical bi ak it ay pédiatre taxaw temm ak i docteur personnel bay liggéey ñoom ñëpp ca Gaspard kamara ñu ngi nabb nabbee xale yi taxawal nañu ab cellule de crise direction bu petite enfance ak case des tout petits bay na waaram ci mbir mi di accompagner bébé yi ultérieurement bébé yi dina leen identifier yóbbu leen ci ay orphelinat yoo xam ne dañuy wuyoo seeni tur ci fàttali scandale yu bébé yu pouponnière Kër Yërmande bu Ndella Madior Diouf teew ci wàllug yoon gannaaw ba brigade de protection bu sûreté urbaine de dakaar am ku fa déposé ab plainte ci accusé ci wàllug ñàkk yor bu rafet ay bébé di ay muumin mu dib affaire bu nu yóbbu ci kanamu yoon Mamadou Fofana li ñu xam ci mbirum Ndella Madior Diouf mii ak yeneen yi ñu ciy dégg tax na ba amaana ñu njortu ne xëy na amaana lu bëri nëbbu na yàgg na sax nëbbu mi ngi doog a feeñ te xëy na mbir mi jeexagul. waaw euh, c'est sûr encore révélé tous parce que boo gisee fa mu tàmbalee bañ ko téye ba léegi. Mhm. da ngay gis na ne que les révélations les plus frappantes les unes que les autres. ñu ngi mhm. koy am et loolu noonu day wane tey jii nii. que situation bi nga xam te ne nii pouponnière boobu mi ngi ko nekkoon euh, et malheureusement ñu ngi ko doon fàttali def na fi euh, ci télé yeeg rajo yi yëpp pour woote surtout ndimbal li nga xam ne moo jëm ci li nga xam ne ubbi na ko justement pour di fa téyendi ay xale maintenant les faits moom moo graaw ci li nga xam te ne nii wax nañ ko parce que bu fekkee ne ne am na ay décès bu fekkee ne c'était des accouchements clandestins nañ doon def pour récupérer des bébés boole ci également xale yi am malnutrition am dénutrition sax ci boppam mooy ma nga noonu e ba dem ba ñàkk ci seen bakkan loolu tey c'est une lourde responsabilité ou une lourde charge moom mooy peser ci li ki nga xam te ne kii moom mooy la personne de Ndella Madior boole ci tamit beneen fee bu ci gën a graw mooy le fait que amul woon sax autorisation pour mën a ubbi li nga xam te ne nii moom mooy pouponnière bi man nag dama xamul euh, en personne vraiment avertie je le disais hier Ndella Madior nan la mën a nekkee ou bien pratiquer lépp ci en dans en toute illégalité boole ci nit koo xam ne ne euh, Ndella Madior boo koy dégg muy wax bu lay wax ci Europe xam na importance su pouponnière et comment ce, ce, ce truc-là est bien encadré parce que dañ ko jox gëdd parce que ne li jëm ci wàllum xale ak jigéen dañoo am doole trop trop trop trop trop trop dans les pays occidentaux moom mi nga xam ne tukki na ci àdduna bi yépp je crois waroon na quand même prémunir ci yenn yi utoon autorisation au moins peut-être sax ay malnutrition ak yooyu peut-être beneen fànn la mais amoon autorisation bi nga xam te ne nii dina ko permettre mu mu exercer légalement li nga xam te ne nii moom mooy liggéey bi nii mais c'est vraiment dommage ci li nga xam ne au regard euh, des des des des charges qui vont peser sur elle tey jii nii ay moor dom ay xale yu ndaw yoo xam te ne nii euh, tey dañoo am pour dund ñu faatu say loxo parce que amatoo moyen et tey mënoo lay ne amatuma moyen moo tax ñu faatu boo mën a tul war nga mën a orienté wu vers d'autres yi nga xam ne nekk nañ fi justement pour ñu war la mën a dimbali beneen bi également moi je me dis peut-être Ndella Madior est fautive mais également l'État du Sénégal euh, oui à un niveau de responsabilité boo xam na ko ci parce que le fait que ay pouponnières di juddu comme ça te bëri nañ fi tey lii moo feeñ mais je te dis bis bu ñu defee ay investigation ak ay enquêtes sa waay loxo dina dar gémmiñ ci nit ñoo xam te ne nii ubbi nañ ay pouponnière non seulement amuñu autorisation mais boole ci teg ci nag def ko business boo xam te ne nii pour di mu nekk une activité lucrative et or tey la pouponnière ci boppam nekkul na nit ki da nga ci war a mën a séntu loo war a mën a am man damay jàpp ne boo koy ubbi c'était dans un sens de bien faire pour dimbali nit ñi mën a accompagner justement ces parent yi nga xam te ne nii ñi ngi ci famille modeste wala ñi nga xam ne ne tey nekk nañ ci am nañu doom doom te peut-être nekkul ci yoon boo xam te ne nii moom nañ doon xaar nga war leen a mën a jël pour bañ justement ñuy jël bébé yeeg yooyu di leen faat donc loolu yëpp mënoon na kii mais maintenant euh, c'est un c'est du médecin après la mort l'État pouvait prendre toutes ses dispositions et puis jéem a encadrer justement li ñuy woowee ay crèche euh, ak euh, ces kii na la tuddati ces pouponnières yi nga xam te ne nii daanaka foo tourner fu ne yaa ngi gis ñu ngi woo woon bon de toutes les façons on attendra de voir mais ce qui est sûr c'est que oui c'est compliqué elle peut elle euh, tey jii nii moom mi ngi bénéficier wu lu ñuy tuddee présomption d'innocence mais ce qui est sûr c'est que les faits sont extrêmement graves et léegi war na mën a tax tey jii nii tamit loolu nekk prétexte pour ñu jéem a assainir justement ce milieu là ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yor ay pouponnières ay crèches war nañ def ay investigation xool conditions yi nga xam te ne ni moom la xale yi di nekk mm. xool ba xam am nga autorisation yu ci bëri yoo xam ne nag amul autorisation ñu tëj leen seeni borom ñu traduire leen en euh, kii devant la justice mm-hmm. beneen bi am na ñoo xam ne ñu ngi exercer yeneen mbir yoo xam te nii en toute mm. illégalité te loolu kenn waxu ko ba léegi gis nañ fii ay cabinets médico yoo xamante ne nii sawaay dañuy ubbi dans les quartiers là comme ça mbilim eh mbàcc nga ne waaw kaay ma faj la jël perfuser la mais justement yooyu yëpp dañ ko war a réglementer te loolu kenn waru ko def ko dul état du Sénégal mhm. jërëjëf Mamadou na ginnaaw ay xale ay liir ay moomin yu tumaranke euh, ay jigéen ñu mag ñoo xam ne tam ñu ngi ci liggéey ñoom tamit léeg ay mbir dab leen lu ci mel ni fitna lu ci mel ni harcèlement ci béréb ya nga xam ne fa la ñuy liggéeyee loolee nañ ko ci rapport boo xam ne ay gëstukat ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom ñoo ko def ci ndimbalub waa euh, organisation internationale du travail rapport boobee intéressé wu ci jigéen ñi nga xam ne dañuy liggéey te ñu nekk ci ñetti réew ci biir Afrique muy Burkina Faso Côte d'Ivoire ak Sénégal teewul nag résultat yooyu siiwal nañ ko naka démb fii ci ndakaaru ak ay dige ay conseil recommandation yoo xam ne chercheurs yi def nañ ko ngir fitna googee di dab ay jigéen seen bérébu liggéeyukaay ba ci secteur informel bi ñu mën ko mooy ba mu jeex fi tàkk Tidiane Diallo ak polin Thiam bu ñuy def jigéen ñi ci seen bërëb liggéeykaay mu ngi gën a yokk suñ sukkandikoo ci rapport BIT. moo doon ñi liggéey si affaire lekk togg ak euh, ñi liggéey ci affaire produit de beauté ay euh, coiffure ay affaire yu mel noonu ak ñi euh, liggéey ci commerce commerce daal mooy ñi jaay yépp daal voilà loolu la ñu loolu la ñu doon seet ak li ñu gis mooy que am na ñetti forme violence maanaam violence verbale wax bu naqadi nit mën na la wax loo xam ne moo raw dóor voilà ak it am tamit violence physique. ñiy bind rapport boobule def nañu ay suggestion ngir ñu mun a saafara mbir mi. ñun déjà dañu recommander euh, nit ñi ñu jot ci information bi ñu jot ci image ñu jot ci résultat étude bi c'est lu simple xam nga ni mu ni question trois secteurs trois formes de violence boo quelque chose de schématique nit ñi mën nañ ko jëli. ñoom nag lenn rek lañu gis. mooy ñu yokk sensibilisation bi loolu rek moo mun a réglé phénomène bi ndax mu ngi yokk ba léegi Tidiane Diallo ñeneen ñu ñu war a jàppale mooy ñi nga xam ne dañuy dund ak laago ne ay kuréel toog nañu ngir jàppale leen fas yéene wax ak état bu Sénégal ngir ñu ratifier maanaam wane ne ànd nañu ci protocole bi nga xam ne moom la ay réewu Afrique signé ngir gën a jàppale euh, personnes handicapées yi ci seen i ay droit ca kuréel bu yooyee bokk na ci WILDAF WILDAF di ab kuréel goo xam ne dafay jàppale jigéen ñi ci lépp lu jëm ci wàllu développement xeetoo tam ak wàllu yoon di ab réseau boo xam ne mi ngi ci biir Afrique réseau boobee nag démb la woote ab taabaroon fii ci ndakaaru ngir wax ak kilifa yi wax leen ne handicapé yi waruñoo doon poids boo xam ne dafay diis ci société bi ndax ñoom dañoo bokk ci société bi kon dañ leen cee war a mën a boole yëf yi yomb ci ñëpp yëf yi yomb ci ñoom waaye ngëneel lay doon également pour handicapé yi buñ sukkandikoo ci secrétaire général bu fédération sénégalaise des euh, personnes handicapées di Demba Ba dénk ay kàddoom Alassane Balde jafe-jafe boo xam ne population dañ ko war trouver solution ni malgré limite bi nga xam ne am nañ ko ngir koy laago bi ñu yàlla teg mais am na loo xam ne mën nañ ko ci ci loolu nga xam ne mën nañ ko nañu jàppale ci loolu pour ñu mën a indi jéggalu bu baax a baax nag ci jafe-jafe xarala yooye Mamadou Fofana ñu waxtaane Cour suprême bi nga xam ne démb dafa rejeté li nga xam ne Barthélemy Diaz moo ko sàkkoon ci moom di pourvoi ngir contester la ñu ko daanoon atte ko daan ko ci mbirum Ndiaga juuf yëf yi amoon fukki at ak ñaar ci ginnaaw audience bi nag démb la amee woon ca cour suprême maire bu maire mu Sacré-Cœur ñu fàttali ne ci bi mbir mi amee bañ koy njëkk a atte dañ ko daanoon ñaari atu kaso juróom benn weer ya ñu mu mu war kaa tëdd ak ñaar fukki million ak juróom yu mu war a jox njabootu euh, njaga Diouf peine boobee ñu confirmer ko appel ginnaaw bi moom mu defee appel euh, doyu ko mu dem cour suprême cour suprême nag naan euh, neenal ko euh, ñu déglu ci leeral bi nga xam ne moom la ci Abdoul Aziz si Abdoul Aziz Dabakh indi moom ak Madani Marega suprême dàkk pourvoi bu ñoom ñi le ndogal bi bett ñi layool Barthélemy Diaz buñ sukkandikoo ci maître Ciré Clédor Ly cour suprême dàkk pourvoi bu ñoom ñi le déposé woon cour suprême bañ na lépp kon atte ba njëkk ba te ñu dëggaloon ko cour d'appel atte boobu moom mooy wéy léegi nag ba tey des na euh, dañuy yebal ñu liggéey bu ñu ne yemale leen fii ñu yem foofu kon boog ñu ngi déglu Barthélemy Diaz ba xam ndax daf ñuy yebal pour que ñu yóbbu mbir mi fi gën a sori nga xam ne fa lay yem wala ndax nañ ko dàkkal. ñeent kennu yu ñu doon sukkandiku ngir amal seenub lay lépp cour bi dàkku ko lu ñu ko tegoon ci wàllu domage et mu fay ko ba moot sëkk. te ñun dañoo mus a wax ni en fait Barthélémy Dias lu ko toppee moom moo ko def dommage intérêt yi moom à force parce que décision de justice la yoon moo ko dogal lu yoon dogal nag boo ko boo nangu boo ko nanguwul am na foo am na ay voies et moyens xam ne mën na la forcer ba nga nangu ko. mbir bilee doxoon diggante Barthélemy Diaz ak Ndiaga juuf mu ngi xewoon ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre atum tey jii di ñaar fukki fan ak ñaar ci weerum décembre atum 2023 tolloog fukki at ak ñaar ci ren li mbir yi di wéy ba tey Abdoul Aziz Sow Dabakh Mamadou Fofana avocat wu Barthélemy Diaz ñoom nee nañu yëf yi du yem rek Cour suprême ndax dañuy dugal Rabat est-ce que du doon guddal jël oui parce que <laughs> xam nga Rabat Rabat boo ko waxee moom mooy day Mm-hmm. dañuy jàpp ne ci euh, li nga xam ne moom mooy euh, procédure bi nga xam ne topp nañ ko mm-hmm. voie de recours yu ñu usé ba ñëw ci fi nga xam ne moom mooy cour suprême mm-hmm. am na ci fenn foo xam ne ñu ngi demander justement annulation li nga xam te ne nii moom mooy verdict bu ñu joxe certainement peut-être vice de forme wala am na lu ñuy reprocher euh, justement ki nga xam te ne kii moom mooy le juge mais li ci mën a am moo di ne ce qui est clair Barthélémy Diaz waxoon na ko gis nga def na conférence de presse génn mm-hmm. wax na ne euh, lu jëm ci li nga xam te ne nii mooy justement son procès bi nga xam ne cour suprême da ci waroon àddu ni ki démb nekk na loo xam te ne nii moom xaar na ci ne euh, euh, condamnation nekk na loo xam te ne nii parce que il faut savoir lire mm-hmm. entre les lignes loolu la ci mm-hmm. doon wax ne man li jëm ci loolu damay yuuxu mel ni béy boo xam te ne nii dañ koy dañ béy moom nañuy bëgg a faat donc pour wane ne justement préoccupation yi nga xam ne am na ko ci buñ fekkee ne ne en cas de confirmation justement de sa condamnation mm. maintenant que dit la loi par rapport ak quand un député euh, dañ ko condamné définitivement mm-hmm. ci li nga xam ne mooy une affaire pénale mm-hmm. mooy justement dañ la wala radier ci li nga xam te ne nii moom mooy liste des députés ci assemblée nationale bien sur sur la demande euh, bu bàyyeekoo ci ki nga xam ne moom mooy kilifa gu gàllu lépp lu jëm ci wàllum yoon ci mim réew mm-hmm. maintenant on verra ba xam Aïssata Tall Sall formulera justement cette missive la pour demander euh, ñu mën a radier Barthélémy Diaz mhm. beneen bi dañ naan li nga xam ne moo jëm ci euh, euh, poste maire am li nga xam ne moom moo article cent quatre bu code des collectivité des code du code des collectivités territoriales bokk ci li nga xam ne énuméré na ko pour ñu mën a révoquer mhm. juste comme justement le maire par rapport ak justement ak ay fautes yoo xam te ne nii wala yenn yi nga xam te ne nii def na ko tam ci am problème ak wàllum yoon maintenant yaa ngi koy wax Euh, docteur Mbaye Cissé di koo xam ne xam-xamam màcc na ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum yoon nee na mhm. président de la république mën na jël décret pour révoquer justement Barthélémy Dias parce que mhm. bu ñu à la lumière justement de li cour suprême wane moom mooy il faut toujours retenir que Barth est un criminel c'est ouais. clair mm est-ce que dañ naan dakaar a un maire criminel ak yooyu nekk na loo xam te ni ci gis-gis avec tout ce que ouais. représente Dakar et autres peut-être xañ na ne foofu lay waxee et il y je crois une disposition boo xam te ne nii moom mi ngi wax ci loole mais li ci wóorute leer moo di ne poste député moom se clair mm-hmm. que ne da perte parce que yoon ci boppam moo wax loolu règlement intérieur bu Assemblée nationale en son article cinquante et un moom moo wax loolu ci ne député bi nga xam ne li ma doon wax sànq euh, di dinay am euh, de condamnation définitive surtout en matière pénale mm-hmm. la war moom mooy ñu dindi ko ci liste député yi de toutes les façons on verra ci bés yi nga xam te ne ni moom na ñuy dëgmal fan la wànnanti di mujjee ki gëtam mm-hmm. justement fan la Barthélémy Dias di mujjee ak condamnation bi nga xam ne cour suprême daal dina koy confirmer euh, dëgg la Mamadou Fofana yaa ngi doon tudd sànq docteur Mbaye Cissé mi nga xam ne liste la moom nee na li leer ba leer mooy ci jamono ji ñu toll euh, Barth moom pour mu ñàkk mandaam de député ak mandat wu mairie bi de de Dakar loolu moom dafa taxaw ba noppi ndax président de la République mënul def lenn lu muy sukkandiku ci article L135 bu code des collectivités code général des collectivité territoriales mënuta def leneen luy jalgati yoon noonu rek la mën a def ngir jële ko ci bopp mairie bi docteur Mbaye Cissé ñu déglu ko ci téléphone Fatoumata Diop Malheureusement, le maire de Dakar va perdre ses deux mandats, à la fois de député et de maire, parce que l'article du code général des collectivités locales moom moo ko wax moo ne maire bu nga xam ni wala conseil municipal bu ñu condamné pour crime mu ne sa révocation est de droit maanaam dañ koy révoquer également de plein droit loolu moom amul sax demal ak naa ngi ñëw donc alinéa 3 bi moom tamit mi ngi préciser ne loolu décret rek moom moo moo ko mën a jël le président de la république mënul bañ a jël décret boobu malgré affinité wala protection politique politique bu mu bëgg mais bu bu ci digganteem ak Barthélémy Dias quoi qu'il en soit foofu président dafa am obligation pour jël dëkk bi parce que loi bi moom moo ko sant mu des nag post député bi boobee moom docteur mbay Cissé juriste nee na mi ngi des ci loxoy maître ay Tall Sall mi nga xam ne mooy garde des Sceaux ministre de la justice moom bu demandé assemblée nationale ngir ñu dindi Barthélémy Dias loolu rek la ñuy mën a jëfee ndax règlement intérieur bu assemblée tam ni mu taxawee mënut a continuer di nangu Barthélémy Dias ci biir euh, assemblée bi kon révocation euh, dàq ko ci assemblée nationale dafay mel nit kon lu taxaw ba léegi docteur Mbaye Cissé ci téléphone u Fatoumata Diop mandat de député bi boobu constitution moom moo ci wax ci article soixante et bi parce que moom moo koy déchoir de son mandat parce que foofu dafa wax ni euh, membre assemblée nationale bi nga xam ni condamné nañ ko pénalement définitive en matière pénale kooku dañ koy retirer ci liste parlementaire yi boobu nag demande bi ki koy def mooy ministre de la justice te ku ne xam ne tey ministre de la justice mooy maître Aïssata Tall Sall elle a son avocat bi donc moom tamit mënul bañ a jël euh, ci liste président de la république muy ministre de la justice ñoom ñaar ñëpp loi bi def leen tënk à que ñu def procédure de radiation wu Barthélémy Diaz yi mënta ñàkk à défaut dafay nekk violation wu constitution bi ci côté Aïssata Tall Sall wala loi bi ci côté président de la république moom Mamadou Fofana ñoo ko déggandoo docteur mbay Cissé moom déjà mi ngi def le parallèle entre ay Aïssata Tall Sall mi doon défendre Barthélémy Dias ci dossier bi ak maître Aïssata Tall Sall mi nar a demandé ñu dàq Barthélémy Dias ci assemblée nationale. yoon dafa sew. ça va être deux statuts différents. Hmm. de toutes les façons en ce moment là c' que Aïssata joué son rôle d' avocate. ci koo xam ne ne dafa yor liggéeyam. Mm-hmm. Euh, di jaay xam-xamam. Barthélémy Diaz nekkoon ci situation boo xam ne ne jàppoon na ne il fallait que mu am ay conseils justement mhm. yu ko mën a taxaw ci procès bi parce que euh, en toile de fond il y avait des relents politiques justement par mhm. rapport ak euh, ce procès là gis nañ ko depuis 2011 ba fu mu toll nii pratiquement yëf yi def na fukki at ak lu teg mhm. beneen bi léegi Aïssata Tall Sall dindi na manteau euh, li nga xam ne moom mooy avocat bi actuellement elle est ministre de la justice donc moom mooy ki nga xam te ne kii moom moo sàlloo ak lépp lu jëm ci wàllum yoon pour ñu war di ko fi mën a taxaw maintenant il faut il faudra faire ce discernement là mm-hmm. entre ki nga xam ne dafa war a taxaw pour yoon war a mën a dox ci réew mi et que les lois et règlements soient appliqués mm-hmm. dans toute la rigueur ci li nga xam te ne nii moom moo jëm ci en matière pénale civile ainsi de suite mhm. léegi su boobaa position yi day changé beneen bi également moo di ne bokkuñu boor politique boo xoolee ay Tall Sall mi ngi ci mouvance bi. Mm-hmm. mais à côté il y a Barthélémy Diaz ngi ci opposition bi. et loolu day indi beneen conséquence ci li nga xamante ne nii justement moom mooy l' avenir. de mm-hmm. taxawu Dakar et de Khalifa Ababacar Sall. Mm-hmm. je crois am na journaux yoo xam ne wax nañ ko fi. parce que xalifa bu fekkee perte na déjà. Euh, Barthélémy Diaz. maintenant ñoom nee nañ quatorze député nañu amoon mhm. bu fekkee quatorze député nga am nga perte benn ba léegi yaa ngi ci limite bi nga xam ne nii mhm. ne moom nga mën am pour mën a jàll ci parrainage des élus mhm. maintenant si jamais mu am kenn koo xam ne taxaw dakaar nee na nawul wul Khalifa Sall fan la xalifa jëm. problème am na. waaw justement ah, léegi nag xam naa loolu garanti nañ ko ba pare seen biir waxtaan nañ ko mais wala njuumte bu sew bu ci amee rek. oui parce foofu mooy wax ji léegi. parce que léegi fu mu nekk nii. xalifa amagul benn assurance mhm. ci lu jëm ci li nga xam ne nii moo jëm ci conseil constitutionnel mhm. ak option bi nga xam ne def na ko mu di dem ak li nga xam ne nii moom mooy parrainage des élus mhm. mais je dis bien cas boo xam ne bu taxaw la Bart bokkatul bu fekkee ne ne xalifa am na kenn koo xam ne supposons gars yi ronk nañ ko ci moom léegi fan la jëm douze mënu la jàllale. xanaa xanaa peut-être après juriste yi dimbali ñu ci parce que euh, bu fekkente ne demande euh, Aïssata Tall Sall duggul avant bouclage wu euh, dossier parce que dossier dépôt dossier yi la. oui le 26 waaw peut bu duggul entre temps bon yàlla rek a xam daal <laughs> yàlla rek a xam dara. <laughs> cey politique cey politique. en tout cas mi Barthélémy Diaz mi ngi ci guddi gu bët setagul mhm. en tout cas fan yii ñu dëgmal dinañ ci gën am lu leer <laughs> lu ne mën na nekk <laughs> lu ne lu ne lu ne mën na am Mamadou Fofana en tout cas mais ma lay ma lay yeewi bu baax a baax di la souhaiter euh, bon week-end bon week-end surtout week-end week-end de Noël parce que le week-end va se prolonger mhm. mhm. en tout cas ñu ngi souhaiter ñëpp joyeux particulièrement am na koo xam xam ne sax ma ko naroon fàtte et je tenais vraiment mhm. euh, remercier ko mi ngi tudd euh, Cheikh euh, Khadim Diouf mhm. mi ngi dëkk fële ca géej waaye nekk consultant dama tase nag moom ci marché bi rek mhm. ndeysaan maam lu mu fa doon ko gisee rek ne ma non man maa koy fay man maa koy fay <laughs> donc vraiment maa ngi koy nuyu mook soxna mi nga xam ne moom moo yor foofu boutique di Preti Amina ñi ngi maa ngi leen nuyu di leen ziar également di remercier ñëpp ñi nga xam ne bés bu ne ñu ngi ñuy bàyyi xel encore une fois amuñu seen fay dëgg la en remercier ñu leen di ñaanal en tout cas joyeux Noël et puis bon week-end à tout le monde. merci merci beaucoup Mamadou Fofana ñu wéyandi ci xibaar yi ak agent yi nga xam ne recruter nañ leen bees boole leen ci waa fonction publique ñooñe ñu ngi leen doon former former leen ci lan former leen ci li nga xam ne moom la seen liggéey laaj ngir ñu gën a mën a taxawu citoyens yi. te euh, méngoo ak li administration sénégalaise di laaj ci wàllu googee junni lañu ak juróom benni fukk ñoo xam ne ñu ngi leen doon formé ci centre national de formation et d'action seen CNFA bu Rufisque euh, ñoom ñooñee nag euh, cérémonie de clôture bi jeex na naka démb ñu ngi ko doon amal naka démb kon formation bi jeex na formation bi ñeenti groupe la woon te bi muy jeex ministre de la fonction publique di Gallo Ba moom moo ñëw teew mi ngi sàkku ci ñoom nag lépp lu leen seen liggéey laaj ñu mën ko def dañ ko war a mën a def ngir citoyens yi euh, am soxla ñëw ci administration war a fexe tam seen jàmbat yooyu mën a saafarawu galo ba ci euh, teewaayu Cheikh Ahmed Tidiane Seck ak Mansour Ndiaye. li tax ñu def formation mooy fexe jox leen ay jumtuwaay jox leen ay connaissances jox également ñi nga xamante ne ñoo war a tey ëllëg ñu liggéey ci administration. ay principe ak ay valeur yoo xamante ni ci lañu war a sukkandiku pour liggéeyal réew mi liggéeyal citoyen Sénégal yi nekk si ay yitte ëpp solo mooy danga war a nekk au service du citoyen sénégalais am comportement bu rafet ndaxte tey jamono dafa soppeeku. sunu war a gar tey mooy taxaw nekk seen ay soldat seen yitte am accueil bu baax. ba pare délivrer ay services de qualité yu baax nga xamante ni képp ku fa nekk. wala képp ku fa jógee dina xam ne kat administration Sénégal bi kat def na ay jéego yu mag jëm ci kanam. ñu dem ba Kolda fekk fa préfet ba ak waa service eaux et ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngay dimbali waa kaw ga ci daay yi nga xam ne day faral di lakk ci àll bi tubaab di ko tuddee feu de brousse li ñu nemmeeku mooy ci biir département bu Kolda ren ji ne daay yooyee wàññeeku na la ko wàññi nag mooy ay pexe ay pexe ak i jumtukaay yoo xam ne lal nañ ko état bi taxawee benn boor askan wa taxawee benn boor ndax daa yooyee dañuy faral di nemmeeku ne bu weesoo ñax ak gàncax gi nga xam ne da koy yàq pare yóbbaale ko euh, ñu déglu ci euh, leeralu euh, Pape Kajali Barsi daay yaa ngi wàññeeku bu baax a baax fii ci Fuladu suñu sukkandikoo ci kaddu commandant chef secteur bu Eaux et Forêts bu Kolda. par rapport ak 2014 ak 2015 boo xoolee ci nombre de cas yi ñu doon am di xool aussi ci nombre de superficie yi doon la depuis 2020 voilà gis nañ ni daal affaire bi donc wàññeeku na bu baax. mu doon. ab résultat bu ñuy am gannaaw ba ñu lalee ay pexe ngir xeex daay bi fii ci diwaan bi. économie Casamance li ci ëpp ci ci àll bi lay jóge donc euh, dañuy def euh, lépp lu ñu mën rek ba nga xam ni àll boobu véritablement duñu seetaan euh, daay yi di ko yàq loolu nag dañ koy def en collaboration avec nos partenaires mais en collaboration aussi avec les populations locales. suñu sukkandikoo ci préfet bu Kolda ci mbooloo képp la ñu mën a xeex lii di daay yu bëri yi waaye faw nag nguur gi. daal di jàppale service eaux et forêt ci wàllum ay jumtukaay. effectivement li nga xam ne mooy état def na ay effort pour doter li nga xam ne mooy service technique yi de moyens de lutte mais li xool la ñëw si loolu doyul. doyul euh, il faut ñu xoolaat ban stratégie beneen pexe pour mën a def li nga xam te ne moom mooy xeex li nga xam te moom mooy daay yooyu. li leer te wóor mooy at bu ne daay gi dina fi indi ay gàllankoor ak ay yàqute fi ci Fuladu loolu moo tax ñu war a fexe ngir mën ko xeex bu baax a baax. Pape Kadiali Barsi dañuy soobu ci wàllu tàggat yaram ak Coupe d'Afrique des Nations de football bi nga xam ne fii ak ñaari ayu bés dina tàmbali ca Côte d'Ivoire Sénégal war fa mën a dem ngir dependre titre am waaye du ca yem ndax Sénégal bëgg na beneen coupe ginnaaw bi mu gañe woon daaw juróom-benni fan ci weeru février atum 2022 coupe boobee nag daanaka yegg nañ ca euh, waaye nag boo xoolee mbeddu ndakaaru yi wala boog boo laajee nit ñi dafa mel ni seen xel nekkagul ci coupe d'Afrique bi néew na sax ñoo xam ne mën nañ laa wax kañ lay tàmbali ak ñan ñooy adversaire u Sénégal loolu yëpp dëxuñu ci reportage yu Sadio Abibouka ak Baba Diaw ci mbeddu ndakaaru yi ñi ngi ci digg centre ville bu Ndakaaru fii dara wonewul ne que fii ak ki ay fan Sénégal dina dem ca CAN bu Côte d'Ivoire. sama moo tax waaw. la ca gën a yéeme ñi nga xamante ne nañu leen suñu micro xamuñ sax kañ la bi. CAN kam. CAN ban la. pour bii di ñëw ni waaw waaw. kañ la. jàpp ma date bi nag. xaw ma de. xaw ñuy jégalu bu baax a baax ci reportage boobee nga xam ne euh, jafe-jafe ci wàllu xarala moo tax ba mën ñu ko yeggali ñu leen ci gërëm di leen sant di ci jégaluwaat bu baax a baax euh, li xibaar nag mooy euh, Sénégal dafa war a dellu Côte d'Ivoire fukki fan nag ñett ci weeru janvier wii ñuy dëkkmal ngir. dépendre titre bi nga xam ne gagné na ko daaw muy Coupe d'Afrique bu njëkk bu Sénégal am waaye tamit ngir bu ko yàlla maye tamit ñu amaat beneen ndam te loolu ñenn ñi nee nañ mën nañ ne mën na ne mën na ne kon nag ñu ciy ñaanal suñu gayndee bu baax a baax waaye nit ñi defaguñ ci trop seeni xel ndax mbedd yi amul benn affiche amul banderole amul drapeau amul mayo yoo xam ne wane ne ne daal ñu ngi jëm ci Coupe d'Afrique des Nations amaana bu feeti passé <laughs> gars yi dinañ ci euh, gën a bàyyi seeni xel lii mooy pàcc bu njëkk bu xibaar yi li ci des moom moo di li gën a fës ci yéenekaay yi ak soxna Mantoulaye Thioubou rapido indil na leen lu bees taax rapido taf bi gën a gaaw gën a wóor gën a noppale rapido moo leen di may seen revue de presse dikkati naa photo yu Barthélémy Dias bi day